mais ñun c'est la passion. mais c'est ça moo tax. bu ñu nekkee ci ci ci presse mu nekk secteur par essence. déficitaire loolu mooy débat c'est notre passion. tu que tous les hommes d'affaires maintenant ont une maison de presse xaw ma ndax yaa ngi seetlu. waaw euh, il faut se dire te ñëpp dañu naan dañuy perte te te ñoom du ñu bàyyi moo tax pour man presse bi il ñu waxtaan aussi en profondeur. mais sur ce sujet là est-ce que le gouvernement bi moo moo moo moo affolé wu. non en fait c'est que. est-ce que du ñoom ñoo manqué de de sang-froid euh, foog ne ndax c'est entreprise de déstabilisation alors que on est dans dans dans, dans notre routine. xam nga euh, gouvernement dans notre routine xam nga gouvernement naturel xam nga gouvernement naturellement naturellement euh, bu installé wu dafa peuple. dana ko li nga togg neexul jëlagul sax njël cest à que pour man euh, presse bi ak pouvoir bi dañoo war a waxtaan parce que daf Sénégal foo am na foo xam bu ñu fa bëggee dem. presse bi mënul dem sans sans état état mënul dem sans presse. mais ñun kay ñun ñun ñun bind nañu lettre ne ko euh, El Hadj El euh, Serigne Bassirou recevoir ñu. <laughs> xam nga wax nañ ko répété nañ ko ñun kay bëgg nañu. bëgg nañu waxtaan xam nga et c'est utile. non mais parce que mënul ñàkk xam nga may mën a ñun pour man Sénégal boo amee ambition toog Sénégal rek mooy échoué na Sénégal dafa am mission bu mu war a jouer dans le continent dañoo am euh, ambition. noo nos tentacules xam nga en dehors loolu mënoo ko et ñu war a porter nos nos nos nos dirigeants mais loolu. Ah? mais c'est que c'est que. di leen porter ci condition yi de. <laughs> Ousmane moom seen doom bàjjen la mais xam naa ni. Ah? mais mais ma ne ko Ousmane moom mooy seen doom bàjjen mais mais pour man may mun a Sénégal li mu réussir da ko war a da ko war a servir man dama am jikko yi dama am réflexe économique dama naan euh, am nañu bon des bonnes chose yoo xamante ni boo ko réaliser dafa war a am. benn bi dividende bu mu la indil te loolu presse presse da ci mën a jouer rôle bu am solo Sénégal li mu réussir li mu réussir ci ci ci ci ci ci délai bu gàtt bi ñun ñun ñun sax il faut que génn ci biti ba nga ba xool nit ñi ni ñuy waxee taan ak yow mm-hmm. ba ñu la mm-hmm. non wax Sénégal pour ñoom li Sénégal réussir mënul nekk mais da ngay dem ci dëkk tubaab ñun la ñun suñu dëkk lii bu ñu eggoon fii day dam Mm-hmm. mais comment vous avez réussi gérer ko mais à vous mais léegi tiire wuñ ci ñun benn benn benn benn benn avantage ñuy bëgg a reyante suñu biir am na ay politique ay hommes politique parce que c'est vrai que la dimension politique mënul ñàkk ci réew et c'est une très bonne chose un presse contre pouvoir c'est une très bonne chose un presse contre le pouvoir on peut relativiser une presse contre contre le contre le pouvoir mais euh, une bu contre pouvoir c'est une mais dañu am dañu war a am benn benn habitude mooy sur le plan international. Mhm. non dañoo war a porter dañoo war a porter suñu dëkk parce que même na presse état bu porter état ba ba état am doole presse bi moo ci ëpp ay dividende parce que tey média yi média yi seen seen seen seen seen business plan bu baaxul mooy état bi moo ci. deful stratégie rek. mais mais mais Khadim et d' ailleurs ñun dañ dañ dañ lay utiliser euh, comme comme comme médiateur ah dinaa la jox sa correspondant <laughs> waa sa def suñu yokk décidé mais Khadim. xam nga euh, est ce que waxtaan bi gënul yomb bu fekkee ne ñun ñii kay sàkku ñoo ne euh, état dañ bëgg nga réguler secteur bi dañ bëgg nga réformer secteur bi xam nañ ne secteur bi bari na problème. bare na lu ci luñ ciy def lu ci jaaduwul dañoo bëgg tout ça qu'on ni mette un terme ñun ñun ñoo bëgg ñu réguler ñu ñun ñoo bëgg ñu réformer ñu est-ce que kon warul waxtaan bi warul gën a mën a warul gën a mën a mën a yomb parce que tey bu ñu amoon chance toog ak président de la République Bassirou Diomaye Faye euh, du ay waxu euh, dette fiscale euh, la réforme de la loi sur la sur la publicité dina jàppale la la la la presse privée ñu waxtaanee waxu entreprise de de, de presse bi euh, parce que ñun bi ñu toogee ak Macky xam nga lan lañ ko doon wax pour ñun amnistie fiscale bi c'est dans la poche de ñun waxtuñu waxutuñu waxu am na xam lañ ko doon wax défiscalisation mu ne ah loolu nag mënuma ci jël décision parce que du lu ma moom xaar leen ba euh, ñii ñëw ngeen waxtaan ak ñoom est-ce que waxtaan bi warul gën a mën a yomb waaw war war naa war naa gën a mën yomb man man li pour man li ëpp ëpp solo mooy presse bi viable di fay impôt comme waaw te te presque pour secteur dynamique parce que pour mu dynamiser par gis nga les entreprises ñoo war a dimbali tamit presse bi moo tax pour man euh, may mun a il faut que presse bi ñu assainir ko. Mhm. gis nga bu ñu ko assainiree parce que il faut que les entreprises responsabilité sociétale de de munoo am de grandes entreprises dans ce pays la te du ñu te du ñu injecté euh, de la de la publicité dama gis ba ñu wane euh, à Sabodola non fële Tambacounda benn mine d'or Sénégalais yu bëri mel ni ñu ngi koy soogaat découvrir non loolu c'est la propagande de Pastef. non non non non non yàlla sa preuve mais c'est que cette entreprise là. ñoom ñoo propagande mel ni. mais mais euh, mel ni ñu ngi doog a découvrir cette mine d'or cette entreprise là bu doon def effort dëgg pour nit ñi xam ko ci responsabilité sociétale ci am nu mu jàppalee. ci nit ñi xam ko loolu ñu dee entreprise. c'est que entreprise moo soxla réew mi xam ko mais nga làqatu fenn di di. di te quelque part mais les entreprises minières là boo demee vers ñoom. sawaruñu noonu. ci ci ci ci état moo leen ci bàyyi mais état war na leen bu ñu bu ñu leen commencé taxe ji ñuy fay impôt comme ñëpp état bi commencé di leen naan mais léegi yow la giving back yow lan ngay defal pour la communauté. parce que quand tu dois faire quelque chose pour la communauté maintenant mën nga ne dama choisir def ko ci xale yi dama choisir def ko ci presque bi dama choisir dama choisir parce que il faut que ñu créer benn économie boo xamante ni. un pour cent yi nga jëlee fenn deux pour cent di ko def. loo xamante ni injecté dans des secteurs. parce que même on a besoin d'une presse indépendante parce que man li may wax souvent rek Sénégal pour man c'est un petit marché Sénégal c'est un petit marché maintenant euh, certaines ressources mën nañoo jàppale ba ñu mën a am ndiglu euh, voilà des reins solides pour mën a conquérir le marché africain tey Afrique euh, y a rien quoi c'est seen doom bàjjen Ousmane. <laughs> mais mais mais mais mais en fait cest à que il peut il peut jouer un rôle extrêmement important. Ah, il faut qu'il soit gentil avec nous de. non eh, yéen yéen moom xam na ay doomu nijaay doomu bàjjen ngeen. il faut il faut ngeen il faut ngeen. nous on l'aime bien. <laughs> Eh, eh, il le sait xam naa moom il vous aime bien moo tax. keroog dégg mu toog dalal ak de wax ak journaliste. Ah, moom day moom day moom day fay day defal ñun. <laughs> yéen bu ànd ak jamono bu toogee ci nga na wàcc tapis bi na doxee à na doxee à droite. li gën a bizarre mooy tout le monde topp si Ousmane Sonko alors que c'est Diomaye le président mais bon moo tax xam naa ni dina am kii nii mais bon après je sais que dina euh, bon il a besoin de vous vous avez besoin de lui mais c'est que le Sénégal a besoin de sa presse. libre indépendante. et démocratique et pour le continent may mun a continent bi tu vois ak Afrique y a y rien nit ñaa ngi dem souveraineté euh, coup d'état yi di am. dëkk boo dem militaire yaa ngi commencé di lorgner pouvoir yu deme noonu. et puis commencé am fit. ak ah, comment mais parce que nit ñi dañ leen di tàccu maintenant boo amee yow démocratie sa biir réew ni mu gën a rafetee mais loolu da nga ko war a mu nekk loo xam ne da nga ko war a jaay. président Diomaye ba mu demee seeti euh, le président ghanéen Nana mais Nana da ko ne même suñu dëkk xale yi dañu bëgg doon président ndax yow